Lesson 6 Vocabulary 3 École School Classe Classroom Wanak Toilet Wine Kitchen Bar Hanger That is a straw roof that you sit under Kır House néeg room xayma tent dispensaire dispensary marché market bitik shop bureau office dex river teen a well pump, sardine, garden, tool, field, liggéeyukaay, working place, jàkk, mosque, bank, bank, car, bus, aéroport, airport